doxoon seen diggante. ci kóllëre googu xam ne dox na seen diggante. ngeen seqaat liggéey bi. ngeen seqaat liggéey bi. ndax lépp lu ndigal lu Serigne Mountakha indi kër Cheikh Ibra. ndax lépp ndigal lu Serigne Mountakha indi kër Cheikh Ibra Fall. Serigne Bassirou mii moo koy indi. Serigne Bassirou Mbacke mii moo ko fi indi. kon loolu kóllëre la goo xam ne. nee kon loolu kóllëre la goo xam ni. day yombal. day yombal. andin wi. andin wi. ndax la ngeen seqoon démb. ndax la moo tax kon Serigne Bassirou tey bu ñëwee. moo tax Serigne Bassirou Mbacke mi bu ñëwee. ñaari tànk la ñëwee. ñaari tànk la ñëwee ci yow. tànkub së tànkub Serigne Mountakha. tànkub Serigne Mountakha bi. ak tànkub kóllëre ko ngeen seqoon démb. ak tànkub kóllëre gi nga xam ni. seqoon ngeen ko démb yéen ñaar. te mënutoon a toog te ñëwul dox ñaari tànk yooyu. nee mënu woon a toog mukk moom sëñ Bassirou Mbacke. te ñëwul ba ci yow dox ñaari tànk yooyu. ci yoor yoor. nee na ci yoor yoor. ñëwoon nañ kër sëñ Cheikh Jëmb ñëwoon na fee ci sa kër jum sa kër sëñ Cheikh Jëmb sama ju baax ja waaye booba ñëw déggoon ne yaa nga njaareem waaye booba daa déggoon ni yaa nga njaareem waxtu julli ajuma jot bi waxtu julli ajuma ji jot mu ne day dellu Touba julli ajuma ba noppi mu ne day dellu Touba julli ajuma ba noppi ñëw fekk la njaareem ñëw fekk la njaareem ñu xamal ko ne ko yaa ngi fii ñu xamal sëñ Basiru ni ko sëriñ Amdi Faal a ngi ci Mbàkke Bawal kon mooy day daal di ñëw fii mu loolu tax mu daal di jóg nag daal di ñëw fii fekk si la fi jottali la loolu yi jottali la nuyoo boobu ah. nuyoo sëriñ bi nuyoo sëriñ bi akum njaalam akum njaalam ak feddali kóllëreem ak feddali kóllëreem noonu it na ko sëñ bi def ci wàllu boppam nee loolu it na ko bi def ci wàllu boppam jaal la nee sëñ baa ngi la koy jaale sëriñ Basiru mi ngi la koy jaal moom moom tam di feddali kóllëre gi ngeen seqoon di feddali kóllëre gi ñu ñaan ngeen ànd liggéey bi. di ñaan rek ngeen ànd liggéey bi. lu yàgg. nee lu yàgg lool. ba nga àggale ci sa yéene yow itam. ba nga àggale sa yéene yow tam ci sa liggéeyu maam bi. ci na ko Seex Ibra bëggee. ci na ko Seex Ibra Faal sa maam bëggee. ñu ak jokkale ko ci liggéeyu Serigne Touba ba. mu jokkaleen la ko nag ci liggéeyu Serigne Touba bi. Serigne Touba Serigne Mountakha dina la ko nangul. Serigne Mountakha nag mu ngi lay nangul. sëriñ Basiir dox seen diggante. sëriñ Basiir dox seen diggante. di seere si. di seere si. di jottali ndigal li. di jottali ndigal li. loolu yi la sëriñ bi waxoon. nee loolu yi la sëriñ bi waxoon. nañu wax la ko. nee loolu la sëriñ bi waxoon. daam. bi mu ñëwee léegi ci bëccëg rek. nee na loolu day na loolu baax koy seere. Mm-hmm. moom sëriñ Basiir mii. Mm-hmm. ni seqoon nañ loo xam ni moom mii da daan ñëw di ko ba këram di ko fa seet si te booba sax du ak manam waaye fonk gum ko fonk ak fu ko teg moo war a mu daan sol aw daalam ñëw di siyaare sëñ mi jërëjëf jërëjëf sëñ bismillah sëñ bi nu ngi si moo lay jottali ay nu ngi siyaare bu baax ah, di siyaare sëriñ bi bu baax sëñ Fall ne mi ngi lay siyaar bu baax Mbàkke sëriñ Amdi mi ngi lay yóbbante am nuyoo ci sëriñ bi ne sëñ am mi ngi lay yóbbante am nuyoo ci sëriñ bi ah wax ji nag du bari ndax fii dafa tàng wax ji nag du bari ndax fii ñu la dugal dafa tàng li ñuy yóbbante sëriñ Basiru ak sëñ Cheikh Abdoul Latif mii ne li ñuy yóbbante sëriñ Basiru ak sëriñ Cheikh Mbàkke Abdoul Latif mii mooy ndigal lu jóge kër sëriñ Touba daal mooy ndigal loo xam ne bàyyi ko na kër sëñ war a ñëw kër Cheikh Rafal war a ñëw kër ñoo ngi koy teeru te di ko déglu moom lay dunglu moom lay ñoo ngi koy teeru te di ko déglu. nee ñu ngi koy teeru te di ko déglu. ndax ndigal lu fi mës a ñëw. ndax ndigal lu fi mës a ñëw. ci Baay Faal yi. ci Baay Faal yi. sëriñ Basiiru mii. sëñ Basiiru fa Mbàkke mii. ak sëriñ Cheikh mii. ak sëriñ Cheikh Mbàkke mii. ñooy jottali si ndigal loolu. ñooy jottali si ndigal loolu. waxtu wu jot. waxtu wu ne. ñooy ñëw ci nun yéen ngi ñëw ci ñoom. bu ñuy wàcce. nee na buñ ñuy wàcce. mooy ñëw ci nun yaay ñëw ci ñun wàcce ñuy jox ndigal. buñ ñuy jox ndigal. mooy ñëw ci ñun. yaay ñëw sëriñ Cheikh Abdoulatif mii. sëriñ Cheikh Mbàkke Abdoulatif bu ñuy bale ci dëkk ba. bu ñuy bale ci dëkk bi. ci Touba. ci Touba fuñ toll mu fekk ñu. fuñ toll rek mu fekk ñu. kon daal sëriñ bi neel sëriñ bi. kon daal sëriñ bi neel sëriñ baa ngi déglu ndigal rek am dee ngi ndigal lépp ndigal lu ñëw ci moom daal lu ñëw ci dina ko eggale ko def ca lam man def ca lam man la ngeen joxoon Serigne Cheikh jëmb itam ndigal la ngeen joxoon Serigne Cheikh jëmb muy liggéey bee liggéey bii ci nga ca ma nga ca moo ña àndoo nag moo ña àndoo nag Serigne Cheikh jëmb nekk ca nekk ca bu yi weesoo rek bu yi ñu delluwaat ñu delluwaat insha Allah bu yi yëf yi weesoo rek nee bu jërëjëf Mbàkke noo ngi di déglu ndigal rek nee ñi ngi nii toog déglu ndigal ñoo ngi toog ndigal waaw moom bu ci bu ci kanamee nee bu ci kanamee ba yaram wi tane ba yaram wi gën a woyof dina ànd ak ay bokkam yëpp dina ànd ak bokk yëpp ñëwal boppam ba ñëwal boppam ci ba ci ko boppam sëñ bi ko boppam ñoo ngi sàkku nag nee ñu ngi sàkku nag sëriñ Bass yow mi teew sëñ Bassirou yow mi fi teew ak sëriñ Cheikh Abdoul Atif ak sëriñ Cheikh Mbacke Baye Fall ñu dimbali ñu ñu dimbali ñaanal sëriñ bi ñaanal sëriñ Amdi Fall mi li mu bëgg liggéeyal sëñ Muntaxa li bëgg sëñ Muntaxa rek mu liggéey ko rek mu ko su ngeen ko ñaanee nag su ngeen ko ñaanee nag dina am dina am de bu ngeen ko jottalee sëriñ bi su ngeen ko jottalee sëriñ bi dina am dina am kon jërë ngeen jëf kon jërë ngeen jëf sàkku ñaan ñu sàkku ñaan sëriñ Basiru Mbàkke moom sëriñ Abdou Khadir nee na asalaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakaatu nee daanaka sax njërul mujj ci sànni ay kàddu ndax genn kàddu la te lim ci waroon a wax lépp. ak lim ci waroon a leeral. sëriñ seex mii jotal na ko. te nam gën a rafete te nam gën a mate it. kon sëñ Amdi Fall moom sëriñ Amdi moom sëñ Modou Mbenda sëñ Basirum nee na ñu ngi lay nuyu ba baax. di la siyaare it ci sa jataay bii. ndax yaa fi jëmmi seex Ibra Fall tey ci kaw suuf. kon loolu dogalub yàlla sun borom la nee ko ñu ngi lay ñaanal li nga yéenee liggéeyal sa maam ja ci yoonu Serigne Touba yàlla na sunu borom dolli la kàttan dolli la ak wér ba liggéey bi àgg nee nag mu gën a muy gën a feddli seen diggante yéen ñaar ndax yàlla def na moom moo ñëw ba sama kër yow yaa ñëw ba këram moom. fasanteeg man kóllëre. fasanteeg sëñ Basiru kóllëre. te booba mënu ko sax. te booba sax mënoo ko. waaye Pastef rek waaye Pastef rek moo tax nga def ko. loolu mooy mooy seen te nee na loolu kat mooy seen baax. nee lool nag ñu ngi koy feddali. di ko jàpp bu baax a baax. nee di la xamal ne loola di ko fàtte mukk de. nee xam naa kàddu yi mu ciy dolli. Cheikh Ibra nag fu mu nekk. ndigal moo fa bàyyi. ni ko sëriñ fa lu muy waxee léegi. xam na ne fu ñu toog. ndigal moo leen fa bàyyi. kon nag sëriñ bi ginnaaw ba la siyaaree. kon sëriñ bi ginnaaw la siyaaree. sa mag ji fi bàyyi ko muy sëriñ Cheikh Jëmb. di ko sant. ci taxawaayam. ak liggéeyam bu rafet. ci biir kër Cheikh Ibra ba àdduna sépp xam am njàmbaaram. ak yitteem. ak taxawaayam. ginnaaw bu mu la ko siyaaree. nee na ginnaaw bu ko siyaaree nag. njaboot gi topp sa ginnaaw yëpp. ak njaboot gi topp sa ginnaaw yëpp. ndigal nga xam ne. nee na ndigal li nga xam ni. joxoon na ko. joxoon na ko. te ci moom. te jot ndax bis bi mu yónnee Serigne Cheikh. ndax bis bi war faa ñëw. Serigne Cheikh war ca bis boobee la wàccub liggéey. kon loolu mooy seen ndigal lu njëkk. kon loolu Serigne sëñ Amdi Fall moom sëñ Modou Mbenda sëñ loolu mooy sa ndigal lu njëkk. loolu mooy liggéeyu mbale mooy liggéeyu mbale mi. ñuy def ci première safar bi. ñuy def safar bi. nga xam ne naka jekk yéen ñaar ko daan ànd. kon sëriñ baa ngi yeesal ndigal ci yow. ak ñim ko daan àndal ñëpp nag. nee na sëriñ Cheikh Mbacke mii na fi dellu siwaat. ndax lépp yàgg na koo dox. moo ko daan dox. nee na ko daan doxee it. noonu lay wéyee rek di ko dox. kon sëñ Cheikh dina fi dellusiwaat. waaye na nga xam ni. sëñ bi nee na mi ngi lay gërëm. nangul na la itam. nangul na la itam. diggante sëriñ Touba ak Cheikh Ibra Fall. ndaw ya nga fa yónni woon it. ci kanamu Serigne Cheikh Mbacke mii la. yeesal li nga xam ni. mooy jaayante gi dox. mooy jaayante gi dox. diggante seex Ibra ak Serigne bi. nee na mi ngi la koy nungul. fas ko yéene ànd ak yow de. ba liggéey bi dina yàgg lool. ci barkeb Serigne Touba. ak barkeb seex Ibra Fall. sëñ Fallou Mbar wax naa ko fee léegi de ñaar ñii nañ leen beral loxo ñaar ñi am na fu ñu yóbbu de. Cheikh Ibra moom mustul leen kenn musu koo nattable waaye sëñ Basiiru am na foo yóbbu ñabatu ko Cheikh Fall ndax foo nu fekk ñu siggi foo nu fekk ñu siggi man de maa ngi yalwaan yàlla sunu borom mu yokk sa fan ci dolli si wér gi ba la yoon liggéey sëñ Tuubaa nga ànd ko sa mag yu baax yi di ko def liggéey bii la sëñ Tuubaa di liggéey loo lu metti la waaye yàlla na nga ci gën a am ay ndam ci barkeb sëñ Abdou Khadir sa waajur wa ci barkeb sëriñ Tuubaa sa maam ja barke Serigne Touba ak lu mu gërëm Serigne Cheikh Mbacke Baye Fall yal na la nangu te nangul ñëpp waaw. waaw xanaa kon ñu taalal rek Serigne bi ñaan. waaw waaw daam nee na waaw waaw nee na liñ fas ne wér gi mel ni aw doj ba mu ànd na yow liggéey bi rek sëñ am di faal bisimilah taalal la sëñ baa ngi ñaan mi ngi nii waaw amiin amin Mbacke amin amin Mbacke amin amin amin Mbacke lool barke